monu bu nekk sur ma chaîne YouTube Partout TV eh, di la wax nag wéyal di abonné saa su nekk rek ñuy faral di dikk yow ci ay xibaar eh, bi la yoon nag dañu daal di dellu si waat rek ci li nga xam ne moom moo daal di defu Olof Njaay nag daf ne lu defu waxu ci euh, génnu kaso ki nga xam ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye nekk li nga xam ne rek jamono bi ñu toll nii mën nañ ne ñu ngi koy dagaan saa su nekk rek nekkat moom mii di Bassirou Diomaye Faye jot na te tamit jaadu na ñu daal di koy may li nga xam ne rek moo di liberté rawatina nag campagne bi nga xam ne rek moom la ñu daal di dëgmal nekkat ñi nga xam ne ñoom ñoo di candidat yi euh, boobu ba tey ñi ngi woon ci terrain bi wante moom mii mën nañu gannaaw demande ba nga xam ne rek ñi nga xam ne ñoom day avocat defoon nañ ko dañ ko daal di rejeté nag nekkat day wéy di desandi ci fi nga ne rek moom moo di